Thierno mu ngoog secteur privé mooy andil xaalis état waaye fu mu nekk ni ñoom dañu leen xoj. mais lu yéeme la comme ni nga ko waxee mu ne secteur privé mooy andil xaalis état xam nga lii lu ci laloo dafa bëri. Mm-hmm. bi ñuy doog a falu ñoom nguur gu bees gii nii. xam nga waxoon nañ ci conseil des ministres ne ni ñu génne convention yépp yi nga xam ne ni état Sénégal si na ko surtout ak waa ay contrat en tout cas ak waa bitim réew. mais boobu ba tey boo xoolee waxaguñ ci dara alors que loolu poñ bu solo la parce que Simon amoon nañ fi ci wàllum impôt lay wax. yenn saa nga dégg ñu ne accord de non double imposition ak yooyu te loolu Ousmane Sonko daf ci jël engagement bi muy nekk opposant bon nit ñi doon ko euh, euh, la xam nga boo xoolee suñu entreprise euh, en tout cas donc noonu comme tey ak Turquie nga ne accord de non double imposition bu yaa ma dégg mooy waa xam nga am na mm. fiscalité boo xam ne bi par exemple xëy na doo waroon na ñëw ci jibee réew mi après fenn rek la koy fay ci benn réew rek donc moom da ko avantagé jël entreprise turque yi may wax turque yooyu noonu dañoo amoon genre accord yooyu ak Maroc 2004 lañ ko xaatim bi ñu demee ba 2018 2019 2020 marocains yi gis na ñoom seen secteur textile ah, seen secteur textile euh, kii kii nañ ko nu mu tuddati Turquie rey nañ ko après ñuy woote waat pour renégocier kii boobu noonu accord boobu ci jamono boobu la Sénégal di xaatim ak Turquie benn accord bu mel noonu donc boo xoolee ah, lu bëri ci fiscalité donc daf ñuy daf ñuy romb. Mm-hmm. xam nga maa ngi wax sànq chinois ak turquie yi ci nasaraan laa ko waxoon ci wàllu BTP parce que mooy secteur bi ci gën a souffrir Sénégal c' boo ko jëlee sax ci classement ci Afrique subsaharienne mooy boo génnee dëkku Maghreb yi. ci investissement privé ci ay infrastructures Sénégal moo jël deuxième. derrière Afrique du Sud xam nga donc c' est vrai que kon jël nañ xaalis bu bëri nguuru Macky def ko ci secteur boobu noonu ko ay investissement yi mais entreprise sénégalais privées yi ci BTP foofu lañ gën a daanoo avant amoon nañu ay champion ay CSE ak ñoom Baratal ak yooyu mais léegi la ñu gën a daanoo boo xoolee. léegi li ci yéeme mooy am na li li muy wax nii xam nga la la au fait te loolu moo ci gën a bizarre ñun dañuy leb parce que chantier yooyu ñu def yëpp dañuy leb pour def ko léegi bu ñu lebee ba pare kan mooy fay bor bi hmm. du sénégalais na lañ koy fay ci impôt bi donc impôt bi ñuy jël si ñun après la ñuy jël jox ko entreprise euh, nu mu tuddati étranger kii quoi nu mu kii fay kii leb dañuy leb ba pare euh, jox chantier bi entreprise étranger bi après ñu ñu jël suñu impôt euh, fay bor te impôt boobu ngay wax i nga xam nga Sénégal li ñuy wax cool impôt yëpp man ak yow ak Simon quatre-vingt pour cent sénégalais yi nga xam ne amuñu doole ñun ñoo yore impôt bi mooy impôt indirect yi lu mel ni TVA bi nii maam yow dulinu boo ko jëndee 18 pour cent bi ciy teg 100 francs yi nekk ñu teg ci benn 18 pour cent ak lu mel ni Sonatel bu baye lim naa la déclaré leen Sonatel lii la versé ci impôt dafa am lu ñu leeral de dafa am impôt boo xam ne bii dañ koy prélever ci man mii en tant que consommateur ba pare. Mm. doo ko reversé. mais du à Sonatel en tant que entreprise léegi nag. état dafa war a am politique fiscale bu baax parce que dafa am benn kuréel bu ñu tuddee OCDE. Hmm. OCDE mooy xeetu banque mondiale wala FMI ñooy définir politique fiscale. donc ñooñu technique fiscale bi ñu def nii xam nga pour gën a xoj suñuy entreprise yi la mais gën a dooleel multinationales yi. Hmm. li ngay dégg ci coowal impôt bi yëpp nag ñii la léegi nag ñii nii bu ñu dara bett parce que nguuru inspecteur des impôts lañ seen xam-xam ci wàll yu bëri soriwul rombul jam ñaajo pour man <laughs> donc ci la yem. bu bàyyee ci impôt te bu ñu tey nag. ent ñoom ñoom au contraire ñoom ñoo waroon andi benn politique fiscale boo xam dafa war a tax entreprise sénégalais yi xaw a kii quoi nu mu a xaw a nooy moom la Ousmane Sonko dox Sud ay Bolivie ak yooyu doon na jël seen exemple mm. parce que ba ci Argentine dañuy jël ay taxes yu bees teg ko multinationales yi bu ko defee nga permettre entreprise sénégalais yi ñu mën a nooyu ñu mën a nooyu voilà euh, Simon Pierre Faye décision la bu nguur gi yees yi jël jëm ci dakkal yenn ci ay contrat ñu audité ko euh, seen mise en œuvre ñu suspendre ko loolooy tax na secteur BTP bi nekk ci ay jafe-jafe bari na ci ay liggéeykat yu nga xam ne ni toog nañu ñaari weer jotuñu seen salaire am na si ñoo xam ne yóbbu nañu leen euh, chômage technique loolee bu dakkul bi boo ñu xam ne ci crise sociale la ñu jëm Alassane Balde. bari na ci ay secteur d' jamono ji nga xamante ni nag ñu ngi yëkk seen kàddu ngir ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom la ñuy jànkonteel moo xam ci secteur informel bi wala sax ci secteur formel bi gannaaw marchand ambulant yi ak ñi nga xam ne mooy dawal dawalkati moto jakarta yi mu mel ni nag chef d'entreprise yi ñoo tàmbale xuntu gannaaw jafe-jafe yu ñu jànkonteel jamono ji ci wàllu koom moo xam ci wàllu BTP wala sax ñu yëngu ci wàllu a tali ak ñoomin seen moom activité bi nag dafa tàggatembe jamono ji gannaaw ndogal bi nga xamee ni autorités yi jël nañ ko ngir rek taxawal li nga xamee ni mooy contrat yi ngir sayt ko moo xam chantier yi nga xamee ni sax mu ngi nekkoon di ko doxal li mu jur nag mooy ay junni junni ndaw yi nga xamante nag ñu ngi doon yëngu ci boobu le secteur nag jamono ji ñenn ñi sax ñaari weer a ngi ni jotuñu seen salaire ñenn ñi sax sax dañoo faf daal di daqal seeni contrat ñooñee nag ñëw it yokku ci lim bu takku bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci mim réew doon ni ay chômeur situation bu ni mel nag tàmbale jur njàqare waaye mbetteel ndax jàpp nañ ne du lii lañ leen théorisé woon jëm ci wàllu projet bi nga xamante ni nag jamono ji mu mel ni dafa commencé màbb ci seen suuf yi tànk ñu ragal bu wéyee ni yëf yi nag jur safaan ba jëm ci diw Ousmane Sonko Diomaye Faye Simon Pierre Faye audité manta ñàkk euh, ci ay contrat mais bu ñu demee ba koy dakkal bàyyi liggéey di ci ñàkk ay entreprise di si tëj dina xaw a doy waar. déjà alerté woon nañu bi ñu ne euh, dañuy xool. Euh, ñi nekk ci domaine public maritime bi la rawatina corniche mm-hmm. ouest bu bu Ndakaaru en attendant les travaux étaient suspendus mais je pense que ci diggante bi relancé nañ ko mais c'était clair que c'est des milliers des milliers d'emplois yoo xam ne tu mais au chômage technique parce que boo leen leen le temps que ñu xool xool boobu ñaata app la on avait parlé deux mois euh, à trois mois mais ci diggante bi ñooñee nan la ñuy def déjà entreprise yi nga xam ne euh, investir nañu seen i xaalis liggéeykat ya nga xam ne ñoo ca nekkoon ak yeneen revenu wala activité annexe wala connexe ya nga xam ne ñoom ñoo ca nekkoon loolu déjà euh, problème la donc bu bu fekkente ne yenn doxalin yi rawatina nag nga indi pression fiscale pression fiscale peut-être baax na wala baaxut mais li ñu ci gis mooy day asphyxier sunu ay entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne. day asphyxier justement euh, une bonne partie du monde du travail et je pense que loolu war nañoo mën a seet benn arbitrage boo xam ne à la moom mooy gën parce que de la même manière entreprise yooyu bu ñu liggéeyul mënuñu laa fay li nga xam ne moom nga ne moom lañ la ameel ci wàllu fiscalité. fiscalité boobee est-ce que buñ ko naree reconvertir wala échanger ko comme amel nga ma. man tam waroon waroon nga maa fay lii est-ce que du ma ko jël ci lii et cetera et cetera ay arrangement peut-être mais de toute façon ce qui est sûr c'est secteur entreprise Sénégal de manière générale rawatina BTP bi nga xam ne moom la sëriñ bi ale doon tudd sànq mais mhm. secteur la boo xam ne ci jamono ji mi ngi ci ay difficultés et très souvent nag malheureusement en dehors des grands champions yu ñu amoon li fi nekk ci ay entreprises souvent ay sous-traitance la ñuy demee parce que du ñu jot ci marché yu mag yi dañuy espérer les les les les les grandes entreprises am ay marché ñoom ñu ñëw proposer leen seen i ay services pour ñoom ñu ràngu marché yooyu sinon euh, ça va pas et peut-être que solution dina mos ma mën a am mais ce qui est sûr c'est que économiquement bu fekkente ne secteurs yi entreprise nationale yi doxuñu l'économie nationale du gaaw a décoller parce que li ci ëpp moom moo koy soutenir ci wàllu fiscalité moo koy soutenir ci wàllu main d'œuvre moo koy soutenir également ci wàllu promotion de l'emploi donc il faut peser le pour et le xoolaat décision yi nga xam ne kilifay jël nañ ko quelle pression fiscale mais également contrat yi est-ce que jar na ñu koy suspendre wala déet en attendant ñuy xool euh, nu mu demee alors ñu euh, wéyal ba tey jëm ci njëkk yu yees yi nga xam ne jotoon nañu ko fi loncé ne dañu koy wàññi ci ay produits de consommation yi nga xam ne ne nemmeeku nañu ko wàññite gi nag euh, mu ngi ñeeloon euh, riz brisé bi ordinaire diwlin bi naka noonu it sucre cristallisé bi ba ci mburu meex semence yi matukaay boobee nag daanaka door nañu ko fi ci diwaanu Ndakaaru yaatal ko ci yeneen diwaan yi mesure bi ñoo ngi koy appliqué vice président bu ASCOSEN ne dëgg la waaye nag am na ci ñaar yu nga xam ne muy suukar seex mburu mi Euh, yëngal euh, Momat Cissé ay kàddoom ñu teewlu ko. trop bi nga xam ne moom lañ ko def ci applicabilité baax na waaye nag boo xoolee waaw mburu bi ak ni mburu bi mel du qualité boo xoolee itam suukar en poudre bi fan yëpp mu ngi manqué à travers ba prix yi nga xam ne moom nañ ko fixé muy homologation boutique yi respecté suñ ko loolu nag ñu ngi koy naxarlu parce ministre bi nga xam ne moo yore commerce moo war a approvisionner marché bi correctement te période bi ñu toog ubbi frontière rek moo jox potable aux vrais importateurs pour que marché bi parce que marché bu fekkee ne danga toog ba dara nekkul mais pour remplir ko dafay jël temps te bu boobaa ñun ñoo ci loolu te loolu naqarlu jaajëf huit heures euh, trente huit trente neuf Euh, Thierno ba suba Damel non bu subaa moom il faut nga wax si euh, opposition bi ñenn ñi nga xam ne ay kàngam lañ te kenn déggatu leen waaw waaw waaw naa dañoo laaxatu non dafa bëri ay façon am na ñoo xam ne nee la celli mag du ay nelawam celli mag du ay nelawam waaw nee tekk mais tekk tekkaaral boo gis rek ah. xam naa ñi a ñëw que benn benn la gis ñuy wax fu waaw mais am na si nag ñoo xam ne nag xam na ñaan euh, ku làq ci lal bi doo bëgg kuy ronu ku acc ah. koo mbaar mi tam doo bëgg kuy téel waaw xam nga ñu mel noonu quoi ñooñu am na lu ñuy ragal seen ginnaaw xëy na moom moo tax eh, mais lam ci mënti euh, dafa am euh, opposition dafa war a soppi xar kanam parce que nag mbir du defaroo ci loxo yi mbir du defaroo ci loxo yi yàqoo am na loo xam ne Pastef da ko doon wax bi ñuy nekk ci opposition dama d'accord ak ñoom mm. anti système dafa war a am parce que système bi mënut continuer nii loolu dinañ si ñëwaat suba euh,